bataaxalu askan bi bu Cheikh Oumar Diagne ginnaaw bu ñu sante yàlla mii boroom àdduna yi julli si yonentam sallallahu alayhi wa mbokk yi Sénégal mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu doy waar umpalewul kenn ni pression bi bari na ci askan bi yonde bi sallallahu alayhi wasallam waxon nañu ne jamono bu ñewé ñi dëng ñi jël nguur gi bu boba injustice dina bëri kawo dina dal di taxaw nguur gi nañ si lool ci digënté sacc bi bëri bi alal askan bi si digënté injustice bi bisi muju alal bu sénégalais yi dajale woon jamonoy Covid 19. cour des comptes def si rapport doon na lu tiis nag jamonoy Covid ndax ñu bëri ñàkk nañ seen liggéey waaye ñi ñu jiite amuñu benn xalaat bu dul jël alalu askan bi sàcc ko mbokk yi ma leen di fàttali rapport OFNAC IGE IGF ARMP Cour des comptes bi nga xam ne depuis 2016 ba léegi ñi nga xam ne ay jege ñaalew nguur gi lañ kenn topp leen yoon topp leen di leen fàttali ne rapport IGE OFNAC ARMP Cour des comptes depuis 2016 joxoñ nañ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ay jege ñaalew njiitu réew mi lañ ak njabootam mbokk yi taxaw dafa jot ndax dekk bi yoon bi mu jël du yoonu développement nguur gi mu ngi ngàcc deratu askan bi gis nañu ne jamono ji injustice bari na lool digënté japp yi ñu japp ñi nga xamné dañoo contre nguur gi presse bi nga xamné ñu ngi leen di ak manifestation yi nga xam ne ñu ngi koy interdire mbokk yi assise nationale amoon na fi waaye nguur gi jëlu ci compte sunu charte ndeyu réew moo wax ne souveraineté nationale askan bi moo ko moom waaye fii askan bi dañ koy foowee diko toroxal diko ko ñu gis ne nak ñu ngi jëm ci ay échéance 2024 di wax njiitu réew mi ne ko amul droit pour troisième candidature bi nga xam dafa illégitime illégal mbokk yi ci biir sama prison maa ngi ñaanal Sénégal jàmm maa ngi ñaan yàlla 2024 am beneen njiitu réew Sénégal tegu ci yoon yoonu développement àdduna yépp di ñu ñee yàlla am na ko mën na ko te mën nañu ko defal yàlla yàlla defal jàmm Sénégal defal ko sénégalais yi ñi nekk Sénégal ak ñi rep bitiw réew ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy boroom àdduna yi mi nga xam ne mooy yellool cant ci asamaan ak ci suuf Cheikh Omar Diagne Sébikotane 27 décembre 2022 secrétaire général rassemblement pour la vérité ànd ci dëgg. donc gars yi Cheikh Omar Diagne moo bind lettre bi yónnee leen ko pour ngeen euh, xam ni mu ngi leen di bàyyi xel yéen it xelam ak xolam ak yépp mi ngi ci yéen xeex dëgg nag. xeex fen taxawal dëgg ci jaamu yàlla la bokk képp ku ragal suñu borom rek war nga ci taxaw ci saayir ak ci baatin contre vents mare wax naa leen ni xeex bi du sama xeex du seen xeex xeexu Sénégal la xeexu souveraineté national la xeexu libération la xeexu teg dëgg xeex fen la xeex boo xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk du sama xeex waaye du seen xeex mais xeexu nation bi la xeex boo xam ni la ku ci nekk ci ñun daf ko war a def xeexam bañ a ci jiital kenn waaye jiital ci boppam ndax ku nekk bu jàppee ni dangaa war a jiitu ci xeex bi bu boobaa xeex bi kenn du des ginnaaw kenn du jiite kenn waaye ñëppay taxaw ci kanam xam ni xeex boo xam ne la suñu xeex la suñu xeexu njaboot la suñu wajur la suñu dom la suñuy euh, ay génération et des générations yu ñëwugul la bi suicide individuel pour une résurrection collective man lool la def ci xex bi xex bi duma ko xex mukk ba ci sama duma ko mukk ba duma ko fierté waaye sama fierté ci xeex bi mooy ma gis ni peuple bi jóg nañ éveillé wu jël xeex bi def ko seen xeex loolu mooy sama fierté waaye sama fierté du jël xeex bi moome la ko sama bopp moo tax day ma leen di xamal ni xeex bi saa yi ma ci amee mbégte rek mooy gi ma gis li ma gis tey lii lii kese laay ndamoo ci xeex bi du man déedéet ku jàpp ni xeex bii ñu teg sound teg samay musique moo tax may kontaan jàpp ni duma du ma kontaan loo ñu ne mola ya fi wax lu kenn waxul ni duma ma lo. Mola Mollah la nga xam kenn ni duma ma lo. Mola ya yaa jëyate xeex bi jàpp ni duma ma lo. loo lii rek may kontaan loo ci xeex bi tey damaa yeewu Sénégal yop ci biir Sénégal yop ci mbedd mi des centaines de milliers de personnes lii c'est sama mbégte man Li li rek mooy seddal sama xol suicide individuel pour une résurrection collective moy ma yek sama bop ci yeen di gis ni nakate man day gis na ni yéen man may yeen li moy sama xex li moy sama mbégte xol leen aduna fo sànni mbàtt mu tak des centaines de milliers de sénégalais dans les rues taxaw di wax non non à l'injustice non à la manipulation non au mensonge d'État non à à au banditisme d'État, non aux, euh, Sénégalais emprisonnés malhonnêtement, non aux Sénégalais emprisonnés totalitairement, non aux Sénégalais emprisonnés arbitrairement. Man li moy sama mbekté ça yuma diko xol donc li nak moy li nga xamni momay deugal. Ku ni xex bi xex ñew ne ka wala mola moy wala mola nangam duma ci duma ci contane lolu du sama fierté man sama fierté moy gis peuple bi génn gis peuple bi rassemblé wu gis peuple bi dajalo gis peuple bi déterminé wu gis peuple bu taxaw ne debout gis peuple bo xamné dañoo taxaw di xex man lolu moy sama mbégte mooy xam ni peuple bi man yéen ci yéen laa gis sama bopp yéen rek yéen a mën a bégloo te nan la may mën a bégloo mooy ma leen di gis tous ensemble la main dans ngeen taxaw di reyante ngir Sénégal ngeen taxaw ci laay taxaw di jubilé di yuuxu di sant sama borom nan laa ilaha illa allah allahu akbar yaa allah jërëjëf yaa allah merci beaucoup yaa allah albarka jaaraama man loolu moo may kontaan loo mais du son bu ñuy teg du yor micro naan moolaa du yor man dama dee existé tuma dama gumba tëxlu dama xaptalu man existé tuma existé tuma mooy nee naa leen awma papa Mollah Morgun amul pàppa amul yaay amul xarit amul àndandoo benn xarit la am muy dëgg dëgg laa jël boole ko ci sama bopp lu dul dëgg du ma la déglu lu dul dëgg du ma la déglu bàyyi mun na wax fii junni at ak juróom-ñaar du ko def ci sama xeex bii sama xeex bi aw ma ci xarit aw ma ci àndandoo aw ma ci conseiller dama ci gumba tëx taxawu xabtalu ne xeex bi rek xeex bi rek aw ma ci dara kenn mënu ma wax lu ma dégg du papa du yaay du maam du nijaay du xarit du àndandoo du dëkkandoo bu doon loolu bàyyi naa ko bu yàgg bu doon loolu changé naa discours bu yàgg ndax junni xarit ak juróom-ñaar yoo xam ne xam nañ ma ñëw nañ naan moo laa lii nga bàyyi lii defal lii te boobu ba léegi maa ngi def li ma war a def xarit yi sax dañoo dem toogee ne xam ne mënuñu dégluwuma leen pap dégluwuma papa ci sama xeex bi dégluwuma yaay ci sama xeex bi dégluwuma mbokk ci sama xeex bi dégluwuma nijaay dégluwuma bàjjan awma ci dara Sénégal laa ci am Sénégal kese kese laa ci am boo xam ne la awma ci dara kenn jurul moo laa mór gën kenn kenn juru ko du papay kenn du yaayu kenn du doomu kenn du nijaayu kenn du jarbaatu kenn du xaritu kenn du taalibé kenn moo laa mari doon far fànn dëgg rek dëgg rek sama Sénégal moo ma yitteel moo ma ñor donc doomu aadama mënul wax lu ma dégg sama bët yii maa ngi ko teg ci combat bi sama esprit bii maa ngi ko teg ci combat bi sama xol bii maa ko teg ci combat bi sama adduna yëpp maa ngi ko dajale teg ko ci combat bi mooy sama xëy di sama gont ma xëy ci di ci dem bénévolement

incroyable. Ça montre que le peuple sénégalais est là. Le peuple sénégalais est debout. Le peuple sénégalais est conscient euh, des, dangers que, guette euh, le pays. Le peuple sénégalais est conscient du développement, est conscient euh, de l'avancement, est conscient de cette lutte. Donc, li moi, c'est mon Donc, manifestation validée, une mobilisation réussie, un peuple éveillé, digne et debout. Pour la transparence, pour le réveil de la conscience, pour stopper net les voleurs de la République. Cet appel digne des, des, patriotes de tout le peuple sénégalais debout. Encore une fois, nous avons fait ni c'est les casseroles. Vous c'est un combat une lutte sociale c'est un combat de la nation c'est un combat patriotique c'est la nation qui demande quand la nation demande quand la nation demande la nation demande on n'écoute personne juste le rythme de la nation juste la chanson de la nation juste les intérêts de la nation prime tu képp ku même devant ton père tu lui dis-lui que c'est la nation qui prime dis-lui que c'est la nation qui prime les intérêts de la nation C'est c'est les intérêts de la nation qui prime la nation la nation a demandé que tout être tout sénégalais tout patriote doit se lever jël ay casserole frappe fort Nous raisonnons, le président de la république khamal nous vivons de la pure dictature nous vivons un euh, régime totalitaire bandit qui vole l'argent du contribuable, qui détourne l'argent du contribuable, l'argent du pauvre Sénégalais. Nous vivons dans la misère, dans la galère dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Oh, monsieur le président, on en a marre. Donc, ne dire jël de yi Frappez fort, fort encore, fort, plus de 30 minutes, non-stop, tout le Sénégal debout, tout le Sénégal, tout digne fils de la nation, tout digne fils de la patrie, ñu taxaw yor kasoro frappe fort muy résonner partout. Bu n'êtes ci bu peuple bi bu nation bi la nation guerrière amul leneen lu ngeen di n'écoutez personne ku dé Yak sa bamel ku wo kenn boy dé do kenn bo déssé sa bamel kenn la fa fekk donc nation bi bu soxla mel ni yow ak mom kessé bul déglu kenn donc souba inshallah, à partir de 20h, ne rire, na adduna bi yépp na na na ñëpp fëgg casserole yi aussi c'est des formes de lutte C'est des formes de lutte nous ñëpp fëgg casserole yi ne de ca ne boy na saf-sap pour rire ba les morts di ni ah nous ne rire pas nos morts, nos assassinés. Nous, nous, nous, ce peuple-là est digne au mérite de mourir parce que ce peuple là fàttewuñ Ne rire riir ba rire pas di yëngu ba góor yalla yi fa ba jigen yi ba ñiñ toroxal ñu ah, ce peuple là est là ce peuple là est debout nous ne sommes pas oubliés hommage à nos morts Ne rire, ne rire, ne rire. hommage à nos morts hommage à nos disparus hommage à nos qui est assassiné par le régime maquiste, le régime de Macky Nous gâtons traîtris, gâtons les vendus, gâtons les neutres, les imbéciles de la patrie, gâtons les traîtres de la nation. À savoir le gouvernement maquiste, et eh, ses sbires ñi ko àndal ñu ànd ak moom ñi nga xam ni sont là tapis dans l'ombre ils sont là que pour leur type digestif nañ leen wan ni gor ba léegi mi ngi fi am yaay bu jur jaam jur na gor yaay bu jur jaam jur na gor yaay bu jur neutre jur traître jur na gor kon nañ leen wan ni gor yaa ngi partout bañkat yaa ngi partout bañkat yaa ngi taxaw ba léegi fu ñu taxaw di jëbal coow li di jëbal kàddu dëkk gi Il du a wéet ndax dina am gor yu koy teewal saa su contre vents et donc vous faites la fierté de toute une nation vous faites même pas ma fierté mais la fierté de toute une nation vous vous êtes levé vous vous êtes mobilisé Il y a gis nañ ko toutes les terres du monde jël nañ image yoy te dañ koy yobbu dañ koy partout vous êtes vous faites la fierté de Fulbert Sambo. Vous faites la fierté de DJ Badji. Vous faites la fierté de François Mankabou. Vous faites la fierté des 14 morts. Vous faites la fierté d'Idriss Goudjabi. Vous faites la fierté de Pape Alayan. Vous faites la fierté de Cheikh Omar Diagne. Vous faites la fierté de Karim Kouroukha. Vous faites la fierté de Oudman Diagne. Vous faites la fierté de, Papito Kara. Vous faites la fierté de Ousmane Sek. Vous faites la fierté de Omar, etc., etc., etc., des plus de 40 personnes emprisonnées arbitrairement vous faites la fierté pour ces gens-là nga savez ne sont toog di yëg seen bopp ci yéen di jàpp ne yéen tra tra trahiwul leen di jàpp ne da ngeen a xotti tàngaay soleil bi da taxaw des heures et des heures tous debout di reyante pour se leur libération parce que dara nous met loolu et nous interpellons nos marabouts qui sont les régulateurs de la société nous leur demandons est-ce que vous dormez vous, les marabouts, respect à vous. Est-ce que vous dormez Est-ce que vous êtes au courant que Macky Sall vous tue plus de 30 personnes dans les prisons ci ay fen ci ay naxasaxandang ci ay kàcc képp kuy Pourquoi il war nga taxaw ne Macky Sall libéral dans le ndax bu doon seen je suis kon jóg ngeen pour mu libérer ko à Macky vous les marabouts vous les les les les régulateurs de la société demandez à Macky de libérer nos nos fils de libérer nos frères de libérer nos sœurs de libérer nos mamans ils n'ont rien fait ils n'ont pas tort c'est Macky Sall l'en leen nous moo leen duma moo leen vous les marabouts vous demandez du respect vous êtes là vous êtes les les régulateurs de la société vous avez notre notre estime nous vous demandons de parler avec le président Macky Sall de libérer tous les otages politiques bu sur terre vous devez appeler Macky Sall arrête ça suffit libéral jabaru jàmbur yi libéral jëkkëru jàmbur yi libéral doomu jàmbur yi libéral rakk jàmbur yi libéral magu jàmbur yi loolu mooy seen rôle loolu moo war a nekk seen doomu aadama mun ñu leen topp rek ci noonu parce que seen maama doonoon lii seen maama doonoon laa seen maama doonoon lële yéen lan ngeen doon vous devez le montrer Touba a combattu l'injustice ba bu muy làqu Serigne Touba dafa jaayante pour combattre l'injustice il n'a jamais été dans une société boo a injuste de taxaw di vivre de di làqatu wala du wax au devant Nous loolu lañ xamee Serigne Touba nous loolu lañ le Baye Niass ñoon loolu lañ xamee Boukounta Ndiassane loolu lañ euh, euh, Cheikh Omar Touré Cheikh Omar Foutiou Tal, lépp loolu lañ Cheikh seen maam yëpp xeex xare moom lañ xamee lañ def ci kaw suuf ba ñu fi jógee xeex injustice yéen da ngeen redevabilité boobu dafa am ci yéen da ngeen tamit da ngeen yéen ñi si ay ay doomam yéen ñi di ay sëtam da ngeen war a ñëw taxaw ci suñu société parce que ñun ñoo ak yéen ñoo bokk ay société ngeen di sañu le da ngeen war a génn wax ak waa ji da ngeen war génn wax ak bandi bi da ngeen war génn wax ak assassin bi da ngeen war génn wax ak euh, euh, bi da ngeen génn wax ak fenkat bi da ngeen war a génn wax ak ki nga xam ni moom mooy le jàpp ay yaay jàmbur tëj ci kaso yi te defuñu yëguñu jàpp ay jabaru jàmbur tëj ci kaso yi seen jëkkër yi toog wéet jàpp ay frèru jàmbur yi tëj ci kaso yi ngeen toog ne tekk kenn déggu leen ay on dit que yéen yéenay yi yéen la yàlla yónni ci ñun yéen a ko wax ngeen ne yéen da ngeen war a taxaw ak ñun di ñu jàppale di ànd ak ñun di ñu gindi am ñu dem banaan ñooñu dañ ñoom dañuy sauver yowmal xiyaam te mënuñu ñu fii fii sax bu ñu jàppee tëj ñu mënuñu ñoo sauver bugg ñoo sauver ci kanamu yàlla buur bu ndaw bii Macky Sall sax mënuñoo sauver ci moom. bëgg ñoo sauver ci yàlla buur bu mag bi buur bi yaa allah buur bu mag bi subhanahu wa taala ñu ne ñoom mun nañu sauver foofu kuñ ko wax boo fekkee ni fii mënuñu la sauver dañ lay nax mënuñu la sauver fële ndax fii bu ndaw mii fii adduna bu ndaw bi suuf sa ndaw sii Macky Sall jàpp ay nit tëj mënuñu la fa génne ñu ñu ne ñoom ci yàlla mun nañ la fa génne dañ lay nax c'est pas vrai c'est pas vrai ku la dikk añ da lay jox ndékki ku dik agn dalay jox ndekki ku munul jox ndekki dula dik agn añ bu la digee añ waxu la dëgg bu waxtu wi jotee do lek fande dina la ray nous vous demandons de sortir d'interpeller ce président de lui dire en face les vérités d'Allah subhanahu wa taala deug moy deug wax len yeen xalif yeen kilifa diine yi joxoñ leen baaraam Macky Sall nee leen ko mu libéré doomu jàmbur yi yàgg nañ ci kaso yi d'une trentaine d'une trentaine de person ay yaayi jàmbur ay papay jàmbur ay doomu jàmbur ay rakk jàmbur Pape Alé Niang yaayam dafa feebar Pape Alé Niang yaayam dafa feebar doomam bu ñu jàpp di jàppaat di jàpp di jàppaat di tëj di torokal mais ana sëriñ yi Cheikh Omar jaañ jabaram bu muy jógee këram jabaram dafa am doom bu tooy xepp ñu ne ko kaay wuyu muy wuyu ba léegi ñibbiwul yaayam dafa feebar jabaram dafa amoon doom doom bi am na ba léegi suñ jon yàlla tey mi quatre mois Cheikh Omar Diagne mënu ko teg bët quatre mois yaayam a ngay jooy ay jabaram a ngay jooy dooma ma ngay jooy too xat nekk liir ba am quatre mois ñu tëj sa baay ci ay fen tëj sa ci ay kàcc tëj sa ci ay saax-saaxee doomu arab xëj tëj sa ci njaayum doole ana kilifa diine yi ana kilifa aada yi lu leen tere jóg xeex lu leen tere jóg wax dëgg lu leen tere joxoñ baaraam Macky Sall na ko libéral doomu jàmbur yi même buñ ko yëgul nga taxaw ci àdduna yëpp ne wax naa ko mu libéré doomu jàmbur yi na bàyyi doomu jàmbur yi wala dañoo yëgul lu xew Karim xurum xàq bi ñu jàpp muy ndekki toog këram ñu ne ko danget jël yóbbu lan lañ wax xool leen ni ñuy jàppee ñooñu ñu ne am na ay régulateur de la société yi nekk biir Sénégal ñu ñu bëgg a gëmloo ni am na ay sëriñ yi nekk biir Sénégal ñu ñu bëgg a gëmloo ni am na ay nitu diine yi nekk biir Sénégal xam nga luy diine diine mooy dëgg ñu ñu bëgg a gëmloo ni am na ay nitu diine yi nekk biir Sénégal diine mooy dëgg kon bu dee nitu diine mooy nitu dëgg bu gisee dëgg da koy wax ak fu mu mun a bàyyee ko loolu mooy dëgg Macky Sall ay doomam a ngi dox fu ko neex di dem fu ko neex ñoom ñëpp sax suñu alal ñoom ñëpp ñu ngi dem fu leen neex ñoom ñëpp ñu ne Sénégal am na ay kilifa diine dégguñu ci kenn kenn yooyu yàbbi ci ñu gis ko kenn yooyu yàbbi ci ñu dégg ko te nitu diine mooy nitu dëkk mu jàpp ay doomu aadama tëj leen ci lu teguwul ci dara Papito Kara laaj li ma lan lañ ko tëjee dëkk yi amul diine sax laa la wax duñ fa tëjee nit noonu c'est que Sénégal mooy contradiction Sénégal mooy dëkk bu ñu naan ay dëkk diine xalif généraux xalif yu diine xalif kër diine kër nangam mu am injustice yu doy waar te ñëpp ne tekk dëkk yi amul xalif généraux amul kilifa diine te fii la diine gi nekk ndax kenn du tëjee fii benn doomu aadama du nangu ñu tëj benn doomu aadama comme nu ñu def nu ñu tëjee ki nga xam ni moom mooy euh, Cheikh Omar Diagne kii nga xam ni mooy imam Alioune Badara ndaw dafa faatu balaa ñu ko suul nañ def autopsie parce que dafa waxoon ne daa feebar nañ def autopsie ñu tëj ko Karim Xrum Xax ne kii di imam Alioune Badara Ndao da doon wax ni da doon jàmbat ba bu muy dee nañ def autopsie ñu tëj ko loolu bu doon fii la dëkk bii nga xam ne amul kilifa diine amul xalif généro amul régulateur de société amul ay maamam diine gi maa nangam ak nangam nii fii dëkk bii dëkk bii bu amoon kenn du tëj ñooñu kon man gëm naa ni fii la yàlla ji nekk man fii laa gëm ni fii la kilifa diine gi nekk fii laa gëm ni fii la kilifa aada gi nekk fii laa gëm ni kili fii la kilifa dëkk ji nekk nangu loolu fii duñ nangu loolu fii duñ tëj benn doomu aadama ci dañoo bëgg dañuy laaj pour ñu def autopsie kenn du fi tëjaate kon fii la dëgg ji nekk fii la dëgg ji nekk fii dëgg jéegi fii fii kenn du tëj nit parce que dafa wax ni dañ ko def autopsie nañ ko def autopsie ñu tëj ko 4 mois te kenn waxu ci fii kenn du tëj bu doon Cheikh Omar Diagne fii la ko waxee kenn du ko tëj bu doon wax la ko kenn du ko te waxul dara te mi ngi ci bi ku dama lay wax lan la wax

dafa metti bàyyi jàmbur yi ñuy tëj dafa metti ay li ñu def doomu jàmbur yi Papito Kara dafa toog dans li l'humour dans l'ironie di def revue de presse ñu tëj ko kaay yu mu wuyu ñu tëj ko def na quatre mois ci kaso bi moom ci boppam dafa laajte lan laaj de revue de presse comme ni saboté nii comme théâtre bismillah ay waay tey moom daf lay la ñu tëj ko ci dëkku dëgg yi bu doon fiire kenn du tëj Papito Kara mi ngi dox ay soxlaam dëkk yii nga xam ne mooy dëkk dëgg mooy dëkk kilifa yi fii fii kilifa diine yi kilifa dëggu kilifa dëggu yi nekk fii nii ñoom fii rek ku wax du bu fi nekkoon kilifa dëggu yi bu président bi laalee Papito Kara këru dëgg yi diine fii dañuy jog wax kon kenn du ko laal kon Papito Kara bu doon fii la ko waxee ba léegi mi ngi dox soxlaam fii mooy dëkk dëgg ci fii mooy dëkk diine ki fii mooy dëkku dëgg ji nag ñi ñuy wax noonu fii mooy këru kilifa diine yi fii lañ ne fii lañ nekk nag ñoom fii di wax dëgg di dox ci dëgg lu dul dëgg ñu xeex ko ak koo mun a doon bu doon Papito Kara fii la nekk kenn du ko tëj bu doon Pape Alé fii la nekk kenn du ko tëj wala ku ko tëj dee ku leen tëj dee bu doon tey jii Ousmane Diagne bi nga xam dafa def reetaan reetaan reetaan imuti koon yooyu reetaan kese waji tej ko ci kasso yi ci dekk diina gi ha ci dekk aada ha ci dekk keur diina ya ci dekk deug ya waji dafa retane kesse gemi ñu retane rek la def ñu tej ko ke ke di def ironie di ironiser comme dans la culture dans l'art muy ironiser ñu tej ko pap Alé Niang moom defu daara mom moom ñu ne ko xolal da nga genn ay dossier mu ne and dossier ñu ne ko amul ñu tej ko keur diina ya dekk keur diina ya ñu tej ko wax naa leen Cheikh Omar Diagne ñu tëj ko kii nga xam ni mooy Pape Ousmane euh, Seck ci ay fen ñu jiiñ leen force spéciale ci ay kàcc tëj leen waana kër diine ya diine mooy dëgg de diine bu dee diine islam moom mooy dëgg ana kër diine yi yéen laay laaj ana kër diine yi waa ana kër dëgg yi mu muy dégg ci dëgg Sénégal kër dëgg yi kër diine yi kër dëgg yi kër diine dëgg kër kii kii kii kii moom dëgg kii anañu wala ñoom ñu biir Sénégal xanaa ñu biir Sénégal xanaa parce que Sénégal injustice bii nii ku ko gis te nga ne yow sëriñ nga te yow nga ne régulateur de société te nga ne yow dëkk diine nga te yow nga ne nitu diine nga te jógoo wax ci lii ñu dëgg ko <laughs> <laughs> ku la gëm yow day fooye boppam ku la gëm yow xoolal ku gëm dalaa ragal rek kula gëm dalaa ragal billaahi wallaahi injustice bi nga gis ni yow waxoo ci yow yow yàbbiwoo ci xeexoo ci garoo ci sa bakkan ku la gëm dalaa ragal koo gëm loo ni yow mun nga ko ràmm yowmal xiyam danga koy nax du dëgg munoo ràmm kenn yowmal xiyam parce que fii sax munoo fee ràmmuwaate Diop tey yor portable am romb rëbës romb rëbës di wane miiru rëbës bi miiru rëbës ci biti ñu tëj ko kenn tëjuñu ci kenn ci dëkk nongo Diop di def live di def live live kër diine laan dëkk diine laa leen senegal ñu ne dëkk diine la ñu ne ay kër diine fa ne ay nit yu am diine ay dëggukaay ay nit yu dëggu nit yoo xam ni ngi xoolal ñoom ñoo ñu ngi ñu ngi toog di gis lii lépp live Diop live romb rëbës ñu tëj ko waxuma la biir de biti ñu tëj ko ana sëriñ yi hmm? live live romb romb rëbës def ay live ñu tëj ko ana kër diine yi ana kër diine yi <laughs> waaye dëkk bee neex man vraiment dee ñi ñi ñi xalal lu leen arrangé rek lañuy ñuy lijjanti ana kër diine yi ey kaay leen ngeen tontu ana kër diine yi ku romb di def nongo jóob def katu live kese yor porte am di live jour boobu sax liveul di biir biir ville nekk biir ville gars yi dem jàpp ne ko da nga ci kaso bi ana kër diine yi diine mooy dëgg yàlla nee na diine mooy dëgg nitu diine mooy nitu dëgg waaye kii di fen di tëj ci ay fen di tëj ci ay lu dul dëgg nag moom ana ngeen ana ngeen foo leen nekk gis ñu leen de kilifa diine yi këru dëgg yi kër diine yi dégguñ leen de dégguñ leen de maka ngay reye de dégguñ leen de maka ngay tëj jàpp papa jàmbur yi dégguñ leen de kër diine yi ana ngeen kañ ngeen di wax wala yomal xiyam wala bu ñu leen déggee yomal la ñu ngi dund fii de ñi ngi toroxal ngeen ne muut ñi ngi tëj ngeen ne muut ñi ngi rey ngeen ne muut kañ ngeen di wax kañ kañ kañ kañ ngeen di wax kañ ci lan ngeen di wax anamu ana ngeen ana ngeen dégguñu leen ñu leen de yéen ne tekk tekk tekkaaral tekk kañeen di wax ab buur nekk Sénégal di tëj ku ko neex te ñu lañ leen tëjee koo fi tudd turam ma wax la nuñ ko tëjee kenn sàccu ci kenn saagawu ci kenn fenn ci kenn yàqulu ci kenn ñoom ñëpp buñ leen boolee lañ leen tëjee te defuñu dara man maa ngi nii man maa nekk kër diine très protégé <laughs> moo tax booy ku boo leen di wëri kër diine ñëw leen fii fii mooy kër diine fii ñi ñëloo mun a protégé ñoom dañ lay protégé fii mooy kër diine yu baax yi diine kër diine yaa ngi fii maa la ko wax ñii buñ la protégé kenn du la